drapeau du chef de l'État mhm. euh, fa lay les droits de télévision defe naa foofu lay gën a dugg en général avec le droits de chef de l'État alors euh, làmb dafa dafa doy waar dafa dire autant si biir approche bi am na professionnalisme mais sur lu mu xaw a archaïque comment comment ça se passe waaw a des incohérences c'est loolu mooy euh, feebar bi nga xam ne ñu ngi koy jéem a saafara xam nga làmb ji les droits appartiennent au CNG droit CNG moo ko moom dafay rétrocéder un promoteur pour mu exploiter suñu droit yooyu ci benn combat. loolu tax mu jox ko licence. waaw dañ koy jox combat bu jeexee droit yi ça revient ñu CNG ñun def ne image ñu protéger ko le CNG. ça appartient au CNG les images de la lutte sénégalaise appartiennent à l'État sénégalais. Mm-hmm. représenté ici euh, par le mm-hmm. CNG. mais nit xamuñ loolu. dañ foog ne ku nekk bu la neexee maa tëgg laa bu ma neex ma def. ma neex ma yónnee sama image pep mu ngi yàq làmb. alors waaw danañ ci danañ ci donc ça moo tax li ma wax léegi rek c'est imagé ne maanaam forme de maanaam école ñëw fii ñun population bi ñuy gérer ñoom ñoo mel noonu c'est-à-dire que la compréhension par endroit difficile parce que booy wax affaire texte il faut que nga mën a jàkkaarloo ko xam ne il faut nga mu expliquer expliquer waat. mais la teneur de nos si là quatre-vingt-dix pour cent ñi xamuñ ko dañu nekk ci làmmiñ mais xamuñ ko. Mm-hmm. ça nous vaut beaucoup de bruit inutilement d'ailleurs mm-hmm. mais il faut que ñu taxaw seetlu seet naka la ñuy defaree yooyu c'est des écueils fonctionnels hein parce que daf daf ñuy laal mais image yi comment comment pouvez-vous euh, apprécier par exemple ñu ne saison bi jot na ñu ne CNG amul un franc. ci droit télévisuel hein amul amul sens dans les autres sports sport par exemple mais c'est la structure qui gère mhm. mooy jaay image mhm. bu dee football c'est la ligue ah mhm. bu dee yeneen yi tamit mais euh, jëlee ca kaw kaw FIFA. mais est-ce que est-ce que fragilité neewul foofu est-ce bu doon parce que promoteur bi moom spectacle bi daanaka moom moo ko moom. Hmm. yéen moom droit yi ngeen kii est-ce que peut-être discussion même ne serait-ce sax ngeen mën a nekk 10 pour cent 20 pour cent droit image yi ñu jël ko. est-ce que aussi télévision yi rapport bu ñu am ak. ak lamb ak sport en général parce que dans les autres pays ça marche pas comme ça télévision moom mooy ñëw jël droit yi fay lu muy fay euh, promoteur ba wala mu fay lu muy fay par exemple. Mm. drapeau du chef de l'État jox ba pare ne image yi maa ko moom man lii laa siy def. c'est ça loolu loolu loolu mooy la démarche professionnelle loolu mooy tànk yi nga xam ne mooy professionnel. parce que ñu nañu si signé signé par exemple ak benn chaîne de télévision ne ko année bi yëpp yow yaa ñu accompagner promoteur bu ñëw sa dugg ci moom moo fay nekk accompagner ko. Hmm. mais mu am redevance bu ñuy verser promoteur ba par exemple mais loolu ça se discute. Hmm. vous savez dans les droits de à l' information des droits des images là am na année bu ñu ko posé ñu ne léegi les les les photographes les caméramans dañuy jënd billet. wala jënd licence. mu indi fi on toole ñuy wax ci alors que c'est ça la norme. mais, ah c'est un droit boo xam ne tôt ou tard il faut qu'on arrive à cela parce que loolu mooy yoon parce que mënoo di exploiter xoolal léegi et maintenant c'est c'est plus c'est plus euh, méchant parce que avec les portables. ah les réseaux sociaux. Les réseaux avec YouTube oui man des promoteurs bu ñu ñu def perpéview mais fi ñu toog. ñu ngi wër ku ñu gis ngay filmé ñu dal sa kaw wala ñu ñëw ñëw ñoo xam ne si ki ma commencé commencé supprimer leen ko xaw ma lan hmm. am na ñoo xam ne da doon trois mois ou quatre yoo xam ne mënuñoo diffuser mais yéen en tant que détenteur des droits hmm. pourquoi yéen mun leen di tëggal seen bopp parfois même su ngeen jëlul journée yëpp tamit ngeen jël quatre wala cinq dates yoo xamante ne nii di ngeen ci organiser bu ko defee ngeen comme da ngeen daan joxe droit yi ngeen moomal ko seen bopp am ci dara mu gën a renflouer seen kees. xam nga loolu moo indi woon les mercredis de l'arène. Hmm. nga wax ne mercredi de l'arène ba si ñëw ñu sax agréé. si si si alors mais on a eu euh, de petites difficultés yoo xam ne ñu ngi poursuivre la réflexion quand même parce que xam nga booy tëgg làmb d'abord les sponsors dafa xaw a sooxee temps yi hmm, hmm, mais ñun dinañ on va rebondir quand même. bon les week-ends moo gën a dox ñu ne bëggoon pour que bu ñu xatal les promoteurs. ñu jox leen week-end ñu jël mercredi. Mm, mm, mm, parce que naa les autres disciplines comme le football. ñoom dañuy jouer tous les jours de la semaine. et c'est alors les Ligue bi ëpp doole. c'est des ah, jours de semaine mardi mercredi. mardi mercredi merci. tey saa bu saa bu ñu koy football. day fees boo demee boo demee sa kër moom. <laughs> salon bi nekk ci ci au au. salle de doo am foo toog. mooy dañuy économie. ñoom dañuy économie parce que mercredi. Mm. dañ koy jaay télévision yi samedi ba. Mm. ñu jaay ko gox goxaan mooy match de championnats. merci dafa am benn c'est un véritable projet. tout à fait c'est un projet. et c'est très c'est intéressant approche boobu nga wax noonu sax c'est très intéressant aw mais également. mais il faut que ñu travaille et puis nit ñi xam lan mooy euh, la médiatisation de notre sport national ñu on est en train ñu ci benn site. site pour le CNG. yoo hmm. xam ne toute la primeur reviendra au CNG parce que tout se passe là-bas gars yi ñëw chaque jour boo ñëwee CNG il y a les la presse en ligne qui est toog di xaar. Hmm. mbër mu dugg ñu jël ko. <laughs> promoteur bu dugg ñu jël la et cetera tous les jours. Hmm. tous les jours. mais ñu on est en l'information xam nga <laughs> mais mais pourquoi doo leen signer partenariat. mais euh? mais non non ñun dañu bëgg suñu site bopp di defar suñu bopp loolu. mais léegi bu boobaa bu boobaa da ngeen wax journaliste yi duñ duggati. non déjà duñ dugg mais ñun mën nañ am suñu salle comme ni ngeen amee fii ñu tableau suñ tableau comment vous appelez ça en communication suñu tableau de pour les sponsors la salle de. waaw de conférence de. de conférence par exemple. foo xam ne boo duggee même sax soo demee sa licence sax nga ñëw nga toog nga def sa déclaration. comme et cetera dañ koy defar ba mu baax effectivement waaw. ñële yem am fu ñuy yem. Charles